aouzu billahi minal shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaam la famille de euh, générique donc bientôt juma bi de na les 13 heures et quart donc 2 heures et quart la ñu donc faire un live bu ndaw rek wax sunu de comme koy rien que la vérité de rek te à waaw comme ni ñu koy waxee rek Sénégal gi sunu Sénégal la du Sénégalu baayu kenn du Sénégalu ndeyu kenn Sénégal de pour tous les Sénégalais waaw sunu maam yi dañ see xeex sunu papa xeex si reyante si ba ñu am sunu indépendance waaw ñiy fal sunu ay njiit faluñu leen ko nag parce que ñoom moom réew mi déedéet dañ leen ko fal pour ñuy war a mën a doxal réew mi waaw ñiy gérer police gérer police ñiy gérer santé gérer santé ñiy gérer sécurité gérer sécurité ñiy gérer am-am bi am-am bi ñiy gérer dund bi gérer dund bi ku ne war a mën a gis sa bopp ci biir Sénégal waaw moo tax ñu fal président de la république président de la république fal ay ministre am tabaxal ay gouvernement wam mais nag faluñu leen pour ngeen jàpp ne que Sénégal c'est pour vous. Non, Sénégal ne vous appartient pas ah, ça nous appartient nous tous wa dama yeewu gis lu yéeme lu doywar, lu am ci sama réew ci Sénégal ci Afrique Wa motax ñun fi ak ans duñu Melny France duñu Melny Maroc duñu melni ah, excusez-moi Maroc sax mu ngi ci bir Afrique Duñu melni Amérique duñu melni Angleterre duñu Melny yenen yi parce que souvent ay baadoo la dañ ñuy jiite ay doomu xaram sax laa mën a wax dañ ñuy jiite parce que naka ngay mën a jàppee ay nit nekk ci benn réew boo xamante ni mën naa ne c'est 17 millions d'habitants ñu si bëri danoo xiif ñii bu ñu ndekkee du añ ñii bu ñu añee du ñu reer ñu bëgg a jàppee nit ñi di leen foowee nan lañ leen di foowee mooy naka la ñuy fale benn ministre wala benn directeur bu ñu ñëwee votel ko budget xaalis ay milliards pour lan pour mu taxaw askan wi bu ñu ñëwee ministre boobu wala directeur boobu bu doxalee un an deux ans bu ñu ñëwee ñu dégg luubal na un milliard wala luubal na deux milliards te à la fin finish duñ leen tëj ci kaso gi vraiment trop c'est trop trop c'est trop sénégalais yi ñu ngi jooy parce que lii taxul tamit ñu fal nguur waaw bu doon loolu la bu nguur am nañ def mën sa morom duma laa loo lambe lambi golo waaw ku mën a sàcc sàcc ku mën a rey rey ku mën a dóor dóori mais buñ demee ba taxawal gouvernement c'est pour ñuy saytu sàcc yi ñu leen di tëj détourneur de alalu askan wi ñu leen di tëj jaaykatu boon yi ñu leen di tëj drogué yi ñu leen di tëj violeurs yi ñu leen di tëj ainsi de suite mais dañuy gis nag àdduna di continuer di dox ci Sénégal ñu gis yenn doomu xaram di enrichir ci sunu ndodd ñun baadoole bi ñun askan wi te nag ku wax ñu ne la waroo wax dañuy wax ba yowmal xiyaam nag dañuy wax ba yowmal xiyaam bàyyu kenn moomul gafaga réew mi alalu réew mi wàccul ci kaw asamaan si ñëw dugg seeni ay poos alalu réew mi amul kenn ku baayam gasteen teen jël moonin dugal ko déedéet tey jii ku si enrichir sunu ndodd la enrichir parce que jaaykatu gerte caaf bi sax dañ koy fayeku loo juuti xaalis boobu dem trésor public moo nin boobu tey la ñu waroon servir Sénégal au moment où président de la république ñu fal ko 2012 ba léegi noppaleekuwul tëddul dalluwul lépp rek mu ngi bëgg un Sénégal meilleur mu ngi bëgg Sénégal bu émerger mais am ay doomu xaraam yoo xam ne ñu ngi su nguur gi sàcc fen lëbëj loolu moo fi war a jeex loolu moo fi war a jeex fii ku fi sàcc dafa war a wuyu ay actam mënuñu dégg ay cour de comptes wala ay OFNAC di épingler ay ministres wala ay directeurs depuis ay ati at gisuñu fi benn directeur bu dem 100 mètres gisuñu fi benn ministre bu dem 100 loolu du dëgg du yoon 100 bi boo fa demee ay nit yoo xam ne dañu bëgg ngénte amuñu lu ñu jëndee xar. amuñu lu ñu jëndee xar ñu dem daral sàcc xar bu fukki junni ñu tëj leen deux ans ay nit yu dugg ci kër sàcc tele pour am lu ñu lekk ñu tëj leen cinq ans jamono jooju benn ministre détourné ay milliards askan wi muy dox gundaandaat nu ko neexee ci dëkk bi tabax immeuble am yore ay kat-katam ànd ak caga ji di dem fu ko neex loolu dafa war a jeex ci biir senegal il faut nag ngeen dégg ko mu dugg seeni ay nopp ñun lu dul yàlla sunu borom gëmuñu ko ku dul yàlla it nekku fi yàlla sunu borom la ñu gëm moom la ñu àndal moom la ñuy topp nguur bu ne day jeex nguuru sunu borom rek moo dul jeex nañuy ànd si dëgg tey wax dëgg ñu bëri dañoo entouré président de la république mais dañu koy dugal si kàmb ci pax bu bon te président mérité wul loolu soxna mérité wul loolu président ku ko xam-xam ne mu ngi jéem lu mu mën pour coono askan wi jeex soxnaam si mu ngi jéem lu mu mën pour coono askan wi jeex mais ay kayma ay mbaam xuux ay doomu xaram nekk ci réew mi di sàcc alal réew mi di enrichir seen doom yi ñu yóbbu leen bitim réew yore ay 4x4 yu jar cinquantaine de millions cagar yi ñu yóbbu di Dubaï ak Qatar ñun askan wi nga xam ne ñoo tax ñu toog tey au pouvoir ñun ñuy tàmbaambaalu dëgg bi nag boo ko waxee ñu ne la da nga réew patati patata bu dee wax dëgg mooy da ngaa réew ñoo tey réew bu dee wax dëgg moo tax ñu ne dañoo xamadi ñoo tey xamadi te lii lancement bi la film bi mu ngi ñëw ñun dañuy wax de si réew mi lañu dëkk ndeyu kenn moomul réew mi baayu kenn moomul réew mi ñun on est des citoyens sénégalais et danoo jekk pour wax ci sunu Sénégal du ñu xaar guinéens yi di ñëw di ñu wax loo du ñu xaar gambiens yi di ñëw di wax du ñu xaar ivoiriens yi di ñëw di wax ñun bu ñu gisee méttit suñu biir réew ñun doomu réew mi bu nu waxul xaw ma kan mooy wax xaw ma kan mooy wax il est temps nag ñu wax parce que nag caaxaan bi mu ngi bëgg a bëri munoo toog ñu jël fal lu toll ni OFNAC président de la république defar ko jox leen ay matuwaay yu am doole jox leen alal pour ñuy saytu ñi nga xamante ni ñu ngi foowee alal réew mi ñuy jël xaw ma ARMPT la tudd xaw ma lan ak lan pour ñuy saytu ñiy jël alalu réew mi ñooñu ñëpp bu ñu defee enquête ñu gis ko ci journaux yi bañ nañ ko ba ci Covid 19 Covid ñëpp yaakaaroon ni àdduna bi day tukki ay junni junni nit dee nit ñi sonn. ñëpp tiit président de la république ñëw ne génne na presque mille milliards pour ñëw jàppale askan wi yenn citoyen sénégalais jël seen alal ne dañuy jàppale askan wu sonn bi jamono jooju yenn mbaam xuux ñu ngi jël alal gi nga xam ne président nee na na jëm si askan wi ñoom ñu ngi koy jël di ko dugal seeni ay gafaga di ngandal ay étage di ngandal ay 4x4 di ngandal ay costume di ngandal ay kollu topp caga gi ñu ne xoolal loolu moo fi jeex sàcc gi lañu bëgg mu freiné wu mu taxaw pour bu ñu bëggee un Sénégal meilleur bu ñu bëggee un Sénégal meilleur faaw ñuy wax dëgg te yàlla tax bu président Macky Sall liggéeyee ñu ne président Macky Sall gongal kat nga jëf bu ñu gisee ay directeur am wala yenn si ay ministre am di def naka sudul noonu ñu oser ñeme taxaw jàkkaarloog ñoom ne leen ay mbaam ngeen yéen sàcc yi ñu def le tout nag pour président Macky Sall mën a tàggoog ñoom parce que président Macky Sall ba muy tàgg ministre yooyu ba muy tàgg euh, euh, euh, ba muy tànn ministre yooyu di tànn directeur yooyu c'était pour ñu taxaw askan wi mais jëluñu len tay pour ñuy euh, sonal askan wi di di di loubal alalu askan wi fu leen neex ñu am kër fu leen neex ñu am ay ay ferme de poulailler fu leen neex ñu am ay hectare ay tol jamono joju sunu maam yi nga xamne euh, bu dëkk bi taxawé tay ñom la amuñu sax 20 euh, cm ci si biir si biir Sénégal trop c'est trop ndaw ñi ñu ngi gën a ci réew mi ndaw bo si gis mu ngi xey pour lu mu dang dangi pour jox papam ak yaayam lu mu lek ndaw ñooñu tey ñooy mën a juddu nar a retraité amuñ su lu nu amuñu si lu nu téye ndax moonin bu ñu jox yenn directeurs yi yenn ministres yi pour ñu mën a financer ndaw ñu liggéey ñu financer ko seen bopp ñoom ñu financer ko seeni ndey ñoom ñu financer ko seeni baay ñoom ñu financer ko seeni askan ñoom ñu bàyyi askanu Sénégal te xaalis boobu du seen wax alalu ndey du seen alalu baay trop c'est trop te dinañu wax man ku may tere wax amut ci réew mi ku may tere wax amut xanaa nga dóor ma bal ma dee ñu suuli nji ma dootuma wax mais du ay tëj kaso du ay xoqatal du ay yu ñàkk fayda mooy tax Kaliphone bu bëggee wax du wax déedéet man damay wax kaso bi tabaxuñ ko pour ginaar yi tabaxuñ ko pour gëlëm bi mësoo dégg nit tëdd na kaso ba génn na amee na sida mësoo dégg nit tëdd na kaso ba génn na amee na kanam bu néew yi buñ la tëjee da koy tëddi boo génnee génn et yowmal ëllëg ñii di la tëj ci kaso bi ci ay fen yowmal xiyaam du ñu tëdd ci kaso gi dañ leen di boyal taal leen ñu lakk leen jëppit donc nag il est temps ñu jël suñu destin en mais ñu wax dëgg te yàlla tax ñi nga xamante ni épinglé nañ leen ñu gis ko ci réseaux sociaux yu ñu nañu jël de un bu dee directeur lu mënti doon ñu démissionné ñu mën a féexal président Macky sàll mu continuer liggéeyam bu ko defee justice def liggéeyam ñu daal di leen tëj ci kaso bi te tëj bi dafa yomb buñ leen tëjee it nañu rembourser alalu askan wi ñu sàcc parce que du benn du ñaar du ñett du ñeent depuis Senghor ba léegi ñu ngi dégg ay ministre ay directeur yuy luubal alalu askan wi à la fin du mujj fen te bés bu ne ñu dégg àlla une ci presse bi waa ji sàcc na xar tëj nañ ko si kaso gi loolu war na jeex loolu war na jeex message bu ndaw la woon naqar bu nekk sama biir xol te man lu nekk sama biir xol damay génn wax ko ku gis ne damaa xamati sa problème la ku gis ne damaa changé sa problème la man xooluma luy neex nit loo xam ne bu ma ko waxee bu ma tëddee nelaw ak di seede dëgg si laay dox doxu may daraay naafequ nit ku yor sa cent franc bëgg ko jox Kaliphone Kaliphone li mu wax dérangé na la teel sa cent franc am yàlla yàlla yàlla ñàkk yàlla ñaa yàlla yàlla trop c'est trop askan wi sonn nañu askan wi maar nañu si toog di dégg ay luubal ay centaine de milliards ay luubal ay centaine de yu kenn xamut et nit ñu ne nit ñi duñ ko wax kan ngeen fi gën ndey kan ngeen fi gën baay man mbindeef gënuma ndey ci biir Sénégal mbindeef gënuma baay ci biir Sénégal te kenn ëpp ma dara des ci biir réew mi ku gëmul sa bopp nag sa problème la mais man damay gëm ne man Kaliphone sàll juddoo fii si réew mi am ndey am baay ba ñu génn àdduna bu ma sentiree lu ma war a mën a wax sama biir réew dama koy waxte dund du ma ko waxte dee toll nañ nag jamono joo xam ne boo waxee ñuy fay yenn nit pour ñu lay wax un wala di la wax deux wala di la jéem a manigancé wala ku am lay wax bul toog si groupe WhatsApp di jëw ku am lay wax talal sa Facebook jakarlo Kaliphone buma amé temps pour tontu la tontu la encore une fois tontu bi duma ma tontu benn kaña aw ma jot bi kaña yi ñuy jox t-shirt ak kaña yi ñuy jox sandwich ak ñuy génn pour naan dañuy wax si Kaliphone bu len xaar Kaliphone di wax ci yéen sen temps te duma ma am sen jot sénégalais la luma sentir mu metti ma sama biir Sénégal dama koy wax fi kenn moomul kenn te nguur yépp te ñaan nañu suñu boromit it jour ñëw ñu naan nguuru diw jaaroon na fi kon nay nice nay rafet mënuñu toog nguur goo xam ne chaque jour ñu ngi dégg ay détournement chaque jour ñu ngi dégg ay milliards chaque jour ñu ngi dégg ay millions mais ba kañ ba kañ loolu taxul ñu fal nguur bu ñu demee ba toll foofu nag ba boo ñu tas nguur ku bëgg sàcc sàcc ku bëgg terrain sàcc ji ko sàcc ku bëgg rey nit nga rey ainsi de suite

du ñu dunguru kenn du ñu maral kenn taatam pour muy clair pour ngeen dégg ko mu dugg seeni i biir ay nopp bu ngeen ko fayit fii fay ko yowmal xiyam parce que nag trop c'est trop mënuñu toog askan wi nekk si jafe-jafe bu doon sax xaalis bi ngeen sàcc da ngeen di dem souvent hôpital CTO fekk fa sénégalais yi sonn yi ngeen fayal leen seen i ay ordonnance wala jël leen en charge à la rigueur bu doon xaalis bi ngeen di sàcc da ngeen di ñëw ci banlieue bi bu mbënd bi ñëwee ngeen jëndal nit ñi ay groupe électrogène nag taxawu leen à la rigueur mais xaalis bi ngeen di sàcc ay immeuble ay 8-8 ay 4-4 non loolu dafay jeex loolu dafay jeex sunu réew nag dañu koy jël nag tee ko ci ay loxoy 7-8 nu président ma Sall woote woon ne yoonu yokkute 2012 ba 2022 bii ñu ngi gis Sénégal mu ngi émerger ku bëgg ànd ak moom si loolu si loxoy set wicc nga liggéey à la mais du ñu nangu ay sàcc ñëw nekk si nguur gi di sàcc alalu askan wi ñu naan nañu noppi ñun du ñu noppi dañuy wax parce que gënuñu ñu ndey gënuñu ñu bàyyi te dinañ si ñëwaat dina gën a yaatu incha allah rabbi hi sàcc yi détourneurs yi ñoom ñëpp dañ leen war a chassé yóbbu leen dóor leen tàpp leen ba dagg seeni nu na nar a yeeg yu kenn xamut parce que nag trop c'est trop jumaa bi dafay jot. dinañ ci ñëwaat inshallah allahu rabbihi yàlla na yalla defal ñep jamm yalla na yalla defal ñep salam lu ñu war wax bari na lool dinañ ci ñëw étape par étape kalifan sall ku ko xamul dégg ngok ba nak ngeen jëlati vidéo yi daggati ko duggal ko seen groupe whatsapp yi di wax man awma seen temps encore une fois bu ngeen xolé sama téléphone bokkuma benn groupe whatsapp amul kuy gëné groupe whatsapp né numéro kalifan sàll ngi ni amul te du mësa am awma temps bi lu ma bëgg wax damay ñëw génn fii waxo et puis mu jeex yàlla na yàlla defaral ñëpp jàmm yàlla Nous yàlla defaral ñëpp salaam sàcc yi faire yi ngeen libéré président ngeen démissionné ngeen bàyyi ngeen dox seen Nous ñun ñu continuer di pour un Sénégal meilleur sonal ngeen président Macky Sall sonal ngeen soxnaam wax Nous bari na ci biir Sénégal sàcc sàcc sàcc sàcc détourné détourné détourné détourné këpp kees këpp kees këpp kees te jàppalewu leen benn ndaw jàppalewu leen ñi si base bi trop c'est trop gars yi wasalaam jumaa dafa jot ba beneen live incha allahu rabbi dinañ si ñoon jaa ngeen jëf jumaa mubarak à tout le monde ba beneen live incha allah